السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أه، أنا سمير جيري سمير جيري فوالا كاي سمير داي فايري نو نو سي كاس كوك مخول لا نو نو نو سمير لي نكو سمير لي نكو ورا فاي سالير باي كوكو سو باتاي دي والله فاي نكو سو باتاي امو والله فاي نكو والله ah nak yalla yalla doli yàlla amin amin Samba tal sar mën turam bee may rey bo booy réew mi la mexe la dëkk Samba tal sar non la tudd Samba tal Samba tal sar Samba tal boo ko waxee ñetti yoon dum de Samba tal sar Samba tal Samba tal sar <laughs> Samba tal sar Samba tal sar Mohamed Kida. Samba tal borom Thiès ak borom Géejawaay la. Hmm? Thiès Awa ñaareel géejawaay. yow moom yow moom yow moom yaa nga àjjana. kookoo mën a aye. mu xam ram moo am na yow dem nga àjjana yow. <laughs> sa goro biir Khady Gueye maa ngi koy nuyu. moom mi jël ci waa géejawaay moo ñu laal waa géejawaay la. voilà borom borom sopp na bi. kookoo mos ñaareel Limaamu Laay voilà. communauté bay nunk communauté bay nunk. noonu la bay nunk bay nunk bay nunk mhm. mhm. waaw mooy ñoom bay nunk bay nunk voilà gis naa ñaani yi démb mhm. jërëjëf ay ñaanu cosaan yu neex ah, ma ñëw di jaay ay yére yu set ñooy jaale ba pare hmm? waaw man leen ñaanal leen man ak yéen tamit nag ñu ne ma toogal nii may xaar basak ñu ne ma déedéet fii ngay toog ci suuf ma ne mbépp toog ñu ne ma tàllale say tànk te tekki say weex ku nekk lu nekk sa xol. ñaanal leen ko ko. ñaan nga mel ni tulleeg man la yow doo dégg sax parce que ku nekk day wax ci kaw ci kaw. macha waaye dañ naan la booy pare it boo jógee it doo gestu doo nuyoo doo wax ba keroog nga yegg sa kër. film booboo neex. <laughs> déedéet ma nekk ak ñaari copain ci oto bi. <laughs> waaw bu ñu waxee bu tontu de. wàññi rajo boobu sës. kuma ma romb di ma def signe sax duma la faale. waaw waaw. maa ngi moom ba ca buntu kër ga ñaan gi. Hmm. romb salle bi traverser hmm. ma dem kay daa tiit sax yaakaar ni ki xana mer la duggé ci kër hmm. dem ba ni sax ci bir nit ba ba ci lal ba. ne Pape Beye. <laughs> Pape la laa àndaloon ak Omar Ndiaye Pape Beye. mën wax mu ne ma wa comme ko dugg nga ci neeg man ko kay ma dama ne ma lu xew ma ne ko ay ñaan lañ ma ñaanalee ci notaire kaw ah, ñu asan ko mais dañ ma ni amul gëstu <laughs> ko nuyu nak jox nga ko ñaan gi koo waxalit jébbal nga ko ñaan. waa xoolal benn rétroviseur bi. doo gëstu teg ca. xoolal rétroviseur xalaatuma ko bu ma oto doon bëgg waaye loolu day caaxaan yow ñooñu ay soxla lañ encore rétroviseur bi gëstu la de non xooluma xooluma rétroviseur xool damaa mel ni robot nii rek laa def xool tuuti baax waaw maag sama kalandoo bi nii nii nii nii ba buntu gaale ma ne cëpp hmm? rek rasul la wàcc rek mbëkk non nekkuma fa sax di wàcc kii di moom kay damaa wàcc jubal waaw ah, waaw traversé ëtt bi hmm? madame de daanaka sama li xawna ko boros. da tamponé mu yaakaar ne mer la jëlé ci mbéd bi hmm? ma accéléré dugg ba tok ci kaw lal ba ni dacc do ne Pape Lal mu noy mané ne Pape Beye Pape Beye ni ma waaw. ak Omar Ndiaye. waa Pape Beye Pape ñaan a jafe ci réew mi fi mu nekk nii. dëgg la du ma ko am di ko joxe. dëgg la de wallaay waroon naa dajeeg nit ba mu ne wala policier arrêté ma nga xool du ma taxaw. kon moo xam ne lépp ko def. dama papa baal ma rek du ko ko def li Macky naan Aly Ngouille ko def duma ko fi jële du ma ko def du ko def du taxaw du taxaw léegi simeer waaw yéen tës xew tuubaa tamit nag sëriñ Murtada Mbàkke euh, euh, xale bi am ñetti at tout tànk si nekk si Touba te le vingt et un la riir ba bis joonu yàlla tey du réseaux sociaux du rajo sëriñ abdu Fattah Falilou moom sëriñ Touba sax wax na ci waaw mais xale yi tamit bu dee ñoom dañ leen di jël di leen sàcc waa ñiy jël xale yi ñan lañ. ah doy bu dee laa wax dañ leen di jël ñi leen di jël ñan lañu. réew mi daal tak takar naa si na da réer mi daal moom moom war nañ ci ah. wax. baayam nag jokkoo naa ak moom démb. Hmm. frère am nekk taalibeem ba nuppi moom mi bokk ci waa kër sëñ Touba. xam naa ne daal woo nañ ministre de l' intérieur. police ak gendarmerie. pataaral ga ca meeru Touba ga nekke nag moo yéem nit ñi. ministre de la famille enfance te jàpp nañ ni lii bu doon ci dëkku nasaraan yàlla kenn waxatu te nee na ñoo yaa ñin ñoo leen ëpp diine ci siraatal mustaqim la ñuy yëngu ni ni ni ni ni waaye daal xam naa ne doomu aadama daal ci mim réew ah mun dee sëñ Moutada Mbacke mii fi mu nekk jaaxal waaw. surtout surtout sëñ Tuuba la. Faal. ah. su ana mbokki baay mi. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Eh, ñu ngi leen di nuyu. di leen ziar eh, di. siyaar mbokki Sénégal yi di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mountakha Bassirou di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér di siar si ñaboo mbàkke si ñaboo baraka si amut mun si amut fatal di ko ñaanal di ñaanal njaboot sëriñ tuuba gépp di ñaanal mbokki taalibe yépp di ñaanal mbokki sénégal yépp di sant bu baax si amoon taxa man nag man la sëriñ mohamed mbàkke doomi sëriñ baara bu sëriñ madu sa bokk ak yaay nday ak baay xale bi réer maag yaayam ñoo bokk nday ak baay may na yaay xale bi man ak papam ñoo bokk benn baay di sëriñ bi mu réeree nak don le 21 ba fii ñuy waxe ak fépp fu ñu war a dem képp ku ñu war a waxal muy kilifa ak muy kilifa diine muy kilifa ak muy autorité ku mën a doon ñëw nañ ba ci yow wax la la nga xam ne ni moom lañ la war a wax lenn rek nag mooy li nga xam ne ni moom moo ñu jaaxal ñu wax ko fépp mooy autorité administrative ministre de l'intérieur monsieur Aly Ngouille Ndiaye ñi ngi lay woo nga jóg jël dugal ci sa loxo bu baax a baax muy jox ndigal police ak gendarmerie ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yor force de l'ordre ndax ñoo yor suñu sécurité ñun ñëpp lii métti na te phénomène bi mi ngi bëgg a bari dal na Sénégalais yu baree bari ñi ngi masawu mbooleem koo xam nii lu mel nii suñu borom dogal na ci nattu ci dogalu boppam mu teg ko ci yow xam nañ coono bi ci nekk xam nañ métti lu ci nekk di ñaanal mboolem koo xam ne nii mas na laa dal te gisagoo sa njaboot yàlla nga ko gis kom mu xam ne nii dalagu la yàlla ba la dal yàlla na ump ñëpp ci barke Seexul Xadim ñun nag jaaxle te it luñ jaaxle jaaxle nag dañuy xam ne ay jaam lañ ay jaam lañ yoo xam ne ci suñu borom lañ jógee mooy wàcce nattu ci lu ko neex ci jaamam mu wàcce ko ci ñun nangu nañ ko wér a wér xamne ne suñu borom la joggé ci lay dellu yi nga xamne nak mom mi ñuko tek dana ko dana ko dana ko wacc ci lo oyof toy di di di sante tey tey tey tey tey ñaan yalla mi nga xamne ni mo def la ko neex ci jaamam yalla nako nit bam ñu wacc suñu loxo ci barke suñu fallu diko sakku ci yeen sénégalais yépp fu way nek nga ñaan ci na nga mëna ñaané bam duggaat ci suñu loxo di baaluwaat ak ñepp di baalu ak ñëpp ak am jaxlé go xamne ne nak am nañ ko jaxlé ci suñu autorité administrative yi nga xamne ñu ñoo nek ci localité mooy Diourbel euh, dëkk tàmbalee ko fi ñu dëkk mooy Touba mooy maire de Touba euh, muy ñoom ñëpp amul kenn koo xam ne nii mooy ministre de la famille kii xale la xam nga ministre de la femme yéen ñëpp comme ci mën a doon rek waroon nañ ko gis tey jii gis fi ndawam waaye boobu ba léegi du maire Touba du kenn koo xam ne nii interpellé na ci wala gis nañ ne kii nii lii am am na ci benn yéeg-yéeg boo xam ne nii am na ko mu lool nag ndax ñun kat. ay sénégalais lañ nek ay citoyen sénégalais lepp loo xamni ni devoir bu citoyen sénégalais wara def dañ koy def waaw kon jaaxal nañu ñun buñu li dalé ñu mel ne ñun duñu sénégalais jaaxal nañu lool waaw ndax lepp loo xamni ni bimu amé ba légui muy police muy gendarmerie biñu dekkal heure buñ leen gisé ñun ñoo juk sol suñu dal ñun ñoo fa dem da am lo xamni ni nak nag dafa mëna ñak ndax yoon ñoo fi nekkal ñepp mënuñoo fajal suñu bopp ndax bu ñu fajalee suñu bopp bu ëllëgee yoon mën naa ñëw dalaat suñu kaw ne yoon a ngi fi woon comme nag yoon a ngi fi yoon wi fi nekk ñun ba tey jii kat ñu ngi woo yoon ngir yoon jug def li ñu xam ne ni ndax ñun ay citoyen lañ bu ëllëgee bu fajee ñun yow citoyen nga waroo woon a faj def nañ li ñu war a def nag mbir na kenn du ko topp ba mu tas dañuy woowaat yoon di woo nag procureur de la république dañuy ñuñ gën a ñaan ndax waajuram wu góor a ngi mi ngi nii toog mooy sëñ Cheikh na ibnu Cheikh Mourtala ibnu Cheikh Moussa Falilou waajuram wu jigéen ngi nii di soxna tuuti ndax ibnu Cheikh leen baar ibnu Cheikh Moussa Falilou di suñu rakk sëñ Cheikh na mag jaaxle lool boobu ba léegi moom mu nekk lu metti lool loo xam ne nii dal nañu nekk ci ñun loo xam ne nii ñun ñëpp ngi koy naqarlu di ko ànd ñoom muy métti bi di saako nag di saakowaat di di ngeen gën ñoo jàppale autorité administrative di sant nag suñu Abou Mbacke suñu suñu Abdou Fatah Falilou di sant Cheikh Cheikh Bassirou di ko jaarale ci ñoo sant googu di sant njaboot suñu Tuubaa gépp asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, man de ndey xam naa ne xale bii day sumeer. ah. Hmm? métti na de métti na doy na waar. am na ko yàlla métti. Hmm. gars yi dañoo ñëw wala. ah euh, dafa réer depuis un mois. Hmm? Serigne Fallou Faye toll ci fukki ak juróom. taalibe daara sëriñ Bas mu Serigne Fallou. corniche. Baay Laat ñaari Baay Faal hmm? Ngóor Fay ak Baay Faal ak awasen waaw seen numéro mooy 77 701 18 01 wala nga indi ko fii ci Zik FM kii moom Moussa Taw fukki at ak benn laam moom it di doomu aadama Taw ak Kadi dëkk Caaroy Gaar moom it daa réer ca <laughs> daara Imaam Sayer ba Touba Toul képp koo xam ne gis na ko na woote ci 77 243 24 28 man day li ma jaaxal mooy communiqué boo jël léegi communiqué yi mbuus yi daan réer ci taxi yeeg yooyu ñu daan ñaar. mais léegi communiqué yëpp ay nit ñooy réer nit ñi ñooy noppam xam nga waxagum naa ñaar nañ dem rek Aliou Dia nee na dafa réer la benn porte clé une semaine. Hmm. képp koo xam ne gis na ko daal na woote ci 77 346 52 46. kii mi ngi tudd Damien Pape Corsène. Hmm. nee na posetam ah dafa fort. Fosset benn contrôleur ci turu Amadou Dieng Dakar Dem Dikk Aline Fall moom dafa portefeuille moo réer bu ñuul la wu def photo ko président Québec ak xaalis Sacré-Cœur 3 doon dem centre commercial Sicap Plateau képp koo xam ne gis na ko na woote ci 77 849 16 68 kii moom daa réer li permis ci turu euh, Youssouf Sidibé Diop. képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 77 403 22 30 kii moom jarbaatam Babacar Ba turu Seydina Issa Laye Ngom moom it daa réer yaayam mu ngi tudd Ndeye Khady Guèye képp koo xam ne gis na ko nag na woote ci 33 832 76 35. voilà. gars yi ñëwaguñ. allo El Hadj ah, kooku day daa ne ma nga ca lakk ga moom. Mhm. kan kan la. Abba ak Mamadou Fall. xanaa Petersen ngeen nekk. waaw Mamadou Fall mu ngi Petersen man foofu laa jëm ndax maa ngi caméra nii waaye nag xam na de balaa ngay def foofu kenn mënu fa accéder fi mu toll nii. waaw Abba ana Mamadou Fall. waaw maa ngi Elage. waa fan la affaire bi toll. waaw affaire bi daal euh, mën na jàpp ni Elage ba léegi sous l'œil impuissant de sapeurs-pompiers mën na ko waxee noonu. ndax ah nag amuñu benn pexe jamono ji waaw. amuñu benn solution euh, li nga xamante moom mooy safar si daal mu ngi wéy di gën di propagé euh, ci Sandaga ay cantine di wéy di gën di lakk euh, sànq nag nañu fi yaay woto sapeur pompier ñëw commencé woon jéem a lakk feeg yi mais ndox bi moom bu du jeex jamono ji daal mën nañu wax ne daal ñoom ak borom cantine yi ñëpp ñoo fi yem ku mu toll nii ñëpp ñu ngi taxaw di seetaan ndax amul benn solution bi nga xamante ne jamono ji mën nañ ko def euh, ngir rek mën a kon arrêté li nga xamante ni moom mooy euh, safara si te itam gis ni sànq ci beneen coté bi euh, mooy maanaam ñi nga xamante ñoo ko feetu ci Sandaga safara si mu ngi wéy di gën di lakk ay cantine te bu ñu moytu aussi bu ñu teelul jóg rek ci mbir mi mën naa Euh, jéey ji mun naa gën a yokku ndax nag ci Sandaga lay jëm jamono ji euh, loolu nag dañuy euh, ñaax rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom citerne yi ndax nag ndox def na nekk li nga xamante ne xëj na ab gàllankoor la ndax sànq naam sax oto yi mënuñu egg ci lakk-lakk bi fu mu nekk waaye nag fu sor la ñu taxaw daal di génne mbir mi di jéem a xool lakk li nga xam safara si commencé woon nañu gën a maîtriser benn partie bi mais mbir mi nag yàggut ndox bi daal di jeex war a jamono ji dem nañu xëj na utuwaat ndox pour ñëwaat waaye nag élage jàppal daal fu mu toll nii dégâts matériel bi foo ko natt rek euh, daanaka weesu na ko ndax nag fii euh, mbir mi euh, doy na waar doy waar boo xamante ni yërëmtul na aussi ndax nag ñi nga xamante ne ay cantine or ñi nga xamante ne ay en tout cas daal am ñi xamante ne xaalis bi dara génne wuñ ko ci mu ngi ci biir mu ngi lakk noonu ñuy taxaw di xool lak lakk bi di koy lakk noonu waaye nag daal élage mën nañu wax ni fu mu toll nii en tout cas daal doy na waar doy na waar trop trop trop trop trop trop trop trop trop sax euh, pour nga aborder nit sax mu mën la ci waxal mbir mi sax euh, doy na ndax nak jamono ji kenn talut euh, wax ñëpp ñu ngi tal xol naka lañu rawale seen ay marchandise ñi nga xamanteni sax aussi amuñu pexé fu mu tollu ni ñu ngi joy ñeneen ñi pour ñu wax problème la lepp émotion ak jaxlé donc xamna ni ci kanam comme niñ ko waxé rek aba bu yegsee waaw ma ma waaw amul amul gisoo foofu noonu délégué marché yi wala autorité yi kilifa yi nekk ci marché beeg yooyu de gisoo fa kenn de. moom laay wax nii fu mu toll nii mbir mi dafa jaxasoo tellement que xam nga safara si. mu ngi wëy di gën di dem di gën di propagé wu donc kenn talul kenn. fu mu toll nii lépp a jaxasoo kenn ku nekk ni nga mën a rawale say bagage wala jàppale euh, sa morom mu génne ay bagage euh, jamono ji ñëpp loolu la ñu tal donc fii euh, kenn talut interviewé sax nit waral jamono ji fu mu toll nii daal ñu ngi xeej na xaar ci kanam ñi di waa sapeur pompier gën a def ay jéego pour ñu gën a mën a laa di daal di kon tey li nga xam ne mooy safara si waaye loolu yëpp ci kanam nañ ci ñëwaat waaye nag tant que aborde nañu kenn lu ñu wax ni mbir mi presque six heures du matin la commencé woon ci benn cantine la commencé woon njort nañu ne li nga xamante moom mooy Eh, courant la pour surfi la waaye nag loolu ci kanam incha allah ni ci indi ay information gën leer donc yaakaar naa ne ji daal élage loolu lañu mën a jàppandikul fi nga ci merci beaucoup moi, moi, Modou Fall euh, ah waa lakk googu moom doy na di ëpp na tool sapeur pompier ñëw ñu ne ndox ma jeex na sapeur pompier mënta jote fa safara yene safara ngay continuer ba six heures du matin ba ba six heures trois heures quinze minutes doy na waar taxaw di xool say hmm. oh, doy na waar de suñu yaay ji nag ñu ngi koy nuyu bu wér yaay Awa Diop nekk buntu Pikine waaw sa doom yi la famille ndaw waaw ñu ngi lay ñaanal yàlla gudd fan bu wér. amiin amiin yaay booy jëf fay daa seen fay bu Ahmed Aïdara maa ngi koy nuyu. moo ma jaaxal. bu ñu ko temps bi mayee rek si meer. ñu neexee ñu delluwaat foofu de parce que lakk gi moom fi mu nekk nii moom léegi kii expliqué fii dafa doy waar trop trop trop. ah. mi ngi bëgg a ci benn semaine ñu toll ci ñetti marché. waaw. doy na waar. non.

man day tay dal loo ci mën deg mu yéemu naa ci yalla Demba Dembélé nee na dafa faté ay papiers. euh yi cité digganteem ak marché jeudi carte carte séjour passeport carte d'identité kep ko xamné gis nako nak na woté ci 77 541 15 03 wala 77 123 95 03. merci grand Omar Junior ah attention de téléphone yi ñuy joxe bu yeboo ngeen def. très attention. Mm-hmm. Mm-hmm. dañ koy joxé ba paré am ñu leen woo ci souf dor kat Ah, ah baax na voilà xale bañ doon annonce keroog ci koñu ñoom Birahim Seck feeñ na. alhamdulilah alhamdulilah Mor Fall 14 ans ba. Hmm. voilà grand Birahim Seck ñu ngi lay nuyu bu vraiment gis nañ sa taxawaay. moom kay xale bu feeñ nekk suñu sag. waaw. dañ koy defu bu defi nag. Hmm. xale yi feeñ nekk suñu sag. kooku noonu kooku faatu. Euh, fàtte ko waa ji. waa ji waa ji faatu borom malaise bi te nekk ci morgue ba. moom tudd. naa tur bi foofu de. am na tudd waa ji. jàpp ma ko. ah en tout cas de lakk bi metti na de nee lakk ba metti na de ñu ngi may yónnee message rek.

ah tout cas loolu tamit doy na de. nga ne kooku daal. dafa liggéey ba wàcc. tëdd ci néegam feebar am malaise. bi mu amee malaise ñu woo sapeur pompier ñu jël ko dem yóbbu hôpital la doon teg ci yoon bi la faatoo. ah mu tudd Samba Balde. Samba Balde. Bissau Guinée la toll ci mhm. juróom fukki at ak juróom-benn cinquante six ans. Fass Mbao bu dee ay mbokkam ñu ngi déglu communiqué bii. Mhm. Samba Balde. ah sapeur. ñoom ñoo woo euh, ki ko doon liggéeyloo patron bi. parce que hmm, dañoo gis numéro am. ci biir téléphone bi. donc ñu woo ko. kon moom instant bi mi ngi fan Dantec mi ngi ci morgue Dantec benn benn mbokkam. waaw mbokk bu dee ñu nañ dem ci morgue bu hmm. Dantec. dafa am malaise dal di faatu. la ilaha hmm. euh, mami. ndaw si. ñuy bëgg a tegaat ci tës bi handicapé la ci pousse pousse maanaam la toog. handicapé mhm. moteur. Mhm. ah nee na nag fi mu luwee ki luwee daal xam naa ne ñoom ñaar daal neexawuñ daal. Mhm. waaw neexawuñ de. bailleur waaw. naa ne ka ko jox mu dëkk daal. waaw moom daal ni mu expliqué moom nag laa wax moom dama ne mu expliqué. dafa mel ni waa ji daal bëgg na daal mu génn kër gi daal ndax bu ñeneen ñi amee jafe-jafe. Hmm. waa ji mën na leen defaraatal seen côté yi ñu dëkk waaye moom daal. Hmm. ah moom daal waa daal ci kaw gàttal daal génnee na ko daal te te bindalu ko kayit daal da bëgg daal na ko may daal ndax xam naa ne dëkk ak handicapé xam naa borom kër gi day jàpp ne mu diis wala neexul wala moom daal borom kër gi daal ci kaw gàttal bëgg na mu génn. ci ni mu bëgg na génne daal. ndaw si ndax handicapé la. Ah. ci ni mu expliqué. Hmm. waaw moom nag day daan doone bi puus puus la yor waaye mm, day liggéey am na doom ju mag étudiante buy jàngee université. Mhm. waaw daan dooleem daal ci kaw gàttal daal la xam waaye daal xam naa ne daal fi mu nekk nii li muy dund nii daal moom daal bu ko expliqué boo leen ko dégloo tës la en attendant nag ñu toog di xaar bu dee borom kër gi mu ngi déglu bu ñëwee ñu ubbil ko suñu micro du noonu. Mhm. intervenir kon ana ndaw si. waaw man sama problème mooy sama bayeur ki ma loué kër gi daf ma sonal sonal na ma torop mayu ma jàmm mayu ma salaam depuis 2015 nak mangi dekk ci kër gi amé luma ko courant amé luma ko ndox amé luma ko location amelu ma fa dara damay fay comme ñep damay liggéey di fay liggéey bi may liggéey moy aw ma nag place mais damay def sous traitant couture di ñaw di jaay lolu moy sama liggéey da ngay ñaw mais buñ la gisé ci physiquement euh, euh, da nga amé lago waaw handicapé la dama doon liggéey ci ben radio la doon liggéey def naa ci rajo boobu quatre ans rajo bi tëj ma arrêté mais la ma fa doon gagné lépp dama ci jël di ci dem di ci yënd di jaayaat pour mun a am lu ma dundee maag samay doom. mais liggéey ci rajo bi boobu yaa ngi ànd maa ngi ànd ak laago bi li may liggéey ci rajo bi maa ngi ànd ak sama laago. man sama profession li ma def mooy animatrice de rajo laa. mais comme amuma fu ma liggéeyee déposé naa ba sonn amuma it. teewul besewu ma les maa ngi jóg di daanu li ma am mu néew ko bari maa ngi ciy suturlu ak samay doom. dama am doom bu mag mu nekk université di jàng kon man am na yu bari yoo xamante ne mënuma ko di xuloo ak xeex heure bu ma waxee rek mu am ma yaama ma ne ko naa mënuma muñal léegi mu jeex. yaa sa doom yéen dëkk ci kër gi. maag sama doom jigéen ñoo dëkk ci kër gi li tax ma wax sama tur mooy dama bëgg nit xam ko dama sonn mantulaay dama sonn au vrai sens moom locataire bi dana la singilee lan la moom. Euh, euh, laago bi moo ko dérangé wala lu xew. mais war war ko dérangé parce que am na ay doom yoo. xam ne dama lay laaj rek waxuma ma ko dama lay laaj. xëy na loolu moo ko dérangé xëy na loolu moo ko dérangé ñeneen ñi buñ yàqulee buñu ñu réclamé sax da koy defar su ma yàqulee su ko waxé mu ne ma soo tànk génnoo ci kër gi duma ko def moom nga bëgg nga genn kër gi par ah, force bañu ma génn ci kër gi man bañu ma de ndax feneen fuma dëkk damay fay mais aussi man fu accessible ci man mo jafé bañu ma génn ndax fo neen fo mëna a dëkk yi da ngay fay mais fu accessible ci man la amoon parce que fàttali ni ci chaise roulante nga nekk. ci laa toog. dama liggéey benn bés wàcc ñëw fekk mu tabax lu toll nii si buntu kër gi ma ñëw ne lii nag mun ne ma waa kër gi ñoom ñoo wax ne naa leen ko yokkal parce que ngelaw li lay dugg nangam ak sàng ma ne ko mais waa kër gi bu ñu ko waxee yow tamit danga dëkk ak handicapé bu yor pousse pousse. fii ba ma fi dëkk nekkul ne dama fi dëkk ndax daf ma neex mais dama fi dëkk parce que accessibilité bi moo tax ma ñëw wax ak yow ñu nga signé man contrat boobu ba léegi sama part de contrat maa ngi koy respecté mais seet naa ne yow respecté wali ma séq ak yow. mais yow boo dugg ci kër ga ci ñu tabax fa mur bu xaw a toll noonu yow nooy def. man maa toj mur bi parce que damay dugg munuma sama doom yi duñu xëy dem di jàngi awma ko ma puus damay xëy di uti lu ma am munuma toog ci kër gi. munuma loolu. léegi toj mur bi maa maa ko toj ci suuf. defal sama bopp yoon boo xamante ne damay dugg di jàll di génn bi mu ñëwee ñëwé bu mu yéwo la lendemain li ma jëk laaj moy ku def li man ko man mako def parce que dama la wo bi ma koy laata def nga ne ma soy dugg del out ku la génne di ko di ut ku lay dugal maanaam ku la waaw yëkëti ci bi tek après nga jall man man ñu doog koy dugal loolu mënuma ko duma mais mosoo ko yoreel dara ci location amé lu ko cent francs CFA Sénégal amé lu ko ko parce que nak duma top. ci nekkul ne dama handicapé rek damay def lu ma neex duma def lool parce que bëgguma ku ma yab chaque mois le 10 ma fay ko location appartement la fa yor trois chambres salon am ñaari ño xamantene dama len suulee sama domi ben nek man ben nek lii ma lay wax c'est vérifiable ñu fi ma ngi wax Sénégal lay wax té ñëpp mën nañ ko vérifier bu la nexé nga yónnee nga ñëw laajte fama dëkk musuma ko amel 100 francs té ma fa gëna cher location nangu ndax man ma fa dëkk après wañi bi mais nak sonu na trop mantu dama bëgg a mais mom dafa la singalé rek ni la kër gi mom di ko genn mayuma jamm mayuma salaam huissier 1 2 huissier ñëw taxaw ne ma est ce xamal xam nga dañ lay génne ma na neex parce que nak man tamit ragaluma j'ai des droits wa du ngeen ñew rek taxaw rek ne ma pa bi neena na nangam ak sangam ngeen génne ma comme nak daf leen yabal mo na man ko génne leen sama yeneen bagage mais génne guñu ko léegi nak jox nañ ma rendez vous ne ma le 22 dina ñew génne sama bagage lolu mo tax ma gëna ñew fi mantoulay dama sonno dama sonno aw ma ko ma suma ci kene te bugguma def lu neexul yalla dina xaru nak maa ngi lay waat. xaru ndax dëkkuwaay. dama sonn dama sonn te ñu ngi may deewal doole ndax sama handicap sonn naa maa ngi ñaan dimbal nag képp ku ma mën a dimbale te yàlla rek tax nga dimbale ma man lay sonn naa. gis nga gis nga gis nga même kii institution yeeg ak euh, biro yi. Mhm. gis nga lii ñu tabax fii nii ñun suñ bunt bi fii. Mhm. nga xam ne dañ ci sóoraale gis nga moom bi ko Mantoulaye di enregistré. Mhm. dafa dawal puus puus bi rek yéeg. daal di dugg ci kaw. amuñ ci benn problème. waaw loolu dañ koo war a def fépp. yéegukaay ascenseur yi lépp defar lépp. am na moom nag moom moo wax ñu nag ñu ngi toog di xaar boroom kër gi tam ñëw indi euh, version mais léeg-léeg da gis ay kër. wala ay oto sax handicapé arrêté la. da ngay bañ. waaw. tu préfères dem jëli beneen client ndax da naan kii yéegam bi. Mhm. te mu yéex te mu léeg léeg mhm. lii mhm. day jël temps. te ñoom dañuy njëkkante ci kaw tali bi. ah en <laughs> na kenn koo xam ne naa ko boole ak sous location bi aussi. en tout cas dal peut être mom borom keur gi amna eh, ubi nañ ko suñu buntu pour mu ñëw wax ah ki de neena ma xamna ko yaama njaay nee ko am jom la mhm, man même man amna keneen ko xam sen association bi la bok jibi jeen nee ma xamna ko fam bu brave la ok wayu la jóob ji neena hmm nañ ko jox numéro téléphone am mhm. waaw la jóob ben responsable APR la nekk géejawaay mhm. waayam ji neena ma jox ma numéro jox ma numéro femme bi. dinaa ko jox léegi incha allah. nee na dina ko jàppale. incha allahu rabbi. yàlla na ko yàlla fay jóob. xam moom li ñu ko ah. gën a mën a jàppalee mooy utal ko kër gu accessible. jàppale dëgg-dëgg foofu la utal ko kër gu accessible surtout. loolu maanaam euh, moom moom moom moom bañul fay. Mhm. moom ci waxam nee na moom amul problème mu fay. day liggéey xëy di dem ñaaw yi ñëwaat. xaw ma problème mu lan la am. accessibilité si beaucoup kër gi muy dëkk. il faut mu nekk këru suuf kër goo xamante ni du am rez-de-chaussée lay dëkk ba pare te tam maanaam dugg ci biir kër gi waaw du nekk mhm. ay jafe-jafe ak yooyu mhm. loolu la loolu la waaye moom bañu fay waaw kii nag amul problème voilà Bakary Traoré maa ngi koy nuyu bu baax a baax mon petit frère Kébé Darou Salam maa ngi lay nuyu bu baax a baax baax Majum ak Omar Mbaye maa ngi leen di nuyu waaw maa ngi leen nuyu wér ah en tout cas day tey Chimère xamu fan la jëlee son bi. ah. <laughs> est-ce que daf ciy foo xam ne. sa taw yaram ngi koy nuyu bu wér. voilà waa Daaru waa Kër Lat Diop yooyu maa ngi leen nuyu. ñu nuyu tam waa parking ba Al Amin. waaw waaw. Mm. Al maa ngi koy nuyu bu ak Zal Canada Zal parking. grand Fisou. Maysa yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu bu wér waay. Asou Diop si dañoo xoom. ñu koy nuyu bu baax. waaw mais kii am na solution. Ah, man kay solution bi may wut kay fi nekk nii. mooy lee xew ca Touba. xale bee réer kay. Ah. waaw suñu premier bi daal suñu premier bi daal la ñuy wut. dina feeñ. waaw boobu daal laay wut solution. quoi mais bu mujj bi moom ci soxna si moom di Yaama Ndiaye moom. waaw boo paree jox ma numéro am léegi ma jox ko waa Kër Lat Diop yi. Mm-hmm. ñu jox ko la Diop mu jàppale ko. dina feeñ. incha allahu rabbi. soobee mhm. ah, réer gi de eh, eh, euh, réer gi mi ngi bëgg a ëpp de libération te de xëy xëyaat na ci. Petersen gi neel booy. mi ngi bëgg a ëpp de dugg mu dugg dugg ndax xale yi bokk wax nañ bu Muxtala Mbacke Alimatu Balde ak bu Ayda Mbaye bu démb bu Thiès bi donte moom Ayda Mbaye feeñ na. ak Mouhamed suñu Mouha bébé Mouhamed Fall bi. ndeysaan ba tey feeñul moom it xale bu deux bi. ndeysaan waaw waa Petersen bu ñu mënee dugg rek après ñu tàggatoo. <laughs> Euh, mi maa ngi koy nuyu ak ñoom Awa Fall ak Faamu avec yëpp association 1177. waaw ñoom ñooy organiser nag euh, en journée de la femme bi waaw ñoom seen bos ndeysaan tey lañ ko def. Mhm. terrain marché jeudi à partir de 15 heures. voilà mi Dieng nee nañ ñëpp waaw. même de nunu ñooñu nga ma doon wax aussi. suba la def euh, samedi bi incha allah. ñooñ nga ma boole loon. waaw waaw waaw. Mhm. ah waaw ok wax nga dëgg. Mhm. Bisco. ah waaw waaw waaw ah waaw mooy sponsor bu bees bi Bisco mooy biscuit bi gën. mooy biscuit bi neex bi. Ah, waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw biscuit bi neex. <laughs> indi na. ak moo ko xàmmee sama doom ji. ma waaw benn paquet jumbo bees ma jëndal biscuit ak soow. dindal ma Bisco. disponible partout au <laughs> Sénégal. Bisco dafa neex na ñu koy defee ay Sénégalais itam ñoom ñoo ko liggéey. man de la koy riimee. maman biscuit lam bong bong. bu ñu demee ba ca càmb maman. ma jëndal mbiskit ak soow. ne ma bisko joxoñ ko nii bisko ak ko xam ne. dinaa ne ko léegi léegi bébé sa sa mbiskit mi. wallaay mooy sunu sponsor. bëri na ci morom wala. ak ko bëgg. moom ah, mbiskit loxo ma bu ma ngoon mu jàpp loxo bi maman ñu dem bu ne egg mu ne maman mbiskit ak soow bi def ci. neel ma waa bisko bisko. waaw. <laughs> noonu ma koy waxee de. mbiskit nooy na neex na. xale nooy na neex na. xale